mun naa euh, xajamal wala boog gàllankoor ña bëggoon itamit fosal seen bopp te ci APR foofe ca Thiès ba tax na Walf Quotidien ne du yomb diggante APR ak euh, réew mi mu ngi ci Walf Quotidien leneen ci xibaar jëm ci campagne vaccination bi maanaam ñàkk yi yemook weeru koor gi ndax woor ba noppi ñàkku ndax am ànd naam déet imaam yi ñoom joxe nañ ci seen xalaat mu ngi ci Walf Quotidien eh, jàppale ak taxaw wàllu secteur électricité bi eh, tax na Senelec jukki na lu toll ci juróom-ñeenti eh, milliards ak yu toftal yu mu fas yéene financé mu ñeel ñetti projet yu mag a mag Euh, mu ngi ci euh, Walf Quotidien yéen a kii di l'évidence mu ngi ñuy dégtal ci wàllu suuf euh, ca kawoon Euh, joxoñ nañ ca baaraamu tuuma Mouhamed Ndiaye Rahma El Hadji Malick Guèye moo ko euh, tuumal euh, ci googu lépp suuf ndajeb coalition benn Bokk Yaakaar Moustapha Niass njiital assemblée national ma ngi cee dalal xelu njiit réew mi Macky Sall ne bu tëddee mun naa nelaw ba yandoor jëm ci élection local yi ñu jëm lum ci yittewoo lu ne njiit réew Macky Sall moom ci boppam dina ko am ci yooyu la wote moom Moustapha Niass naw na lool njiit réew Macky président génnu ko ci Afrique ndax taxawaayam euh, ci euh, Sénégal yéen a kaabi di las ci xëtam bu njëkk xëy taxaw ci élection locale yi euh, janvier 2022 bokk na ci élection locale yooyee ak élection législative yi ñu amal ko ci benn at loolee doon na càkkuteefu ku jeeg politique bi las xëy duñu fàttali la xewoon ci atum 1987 policier radié ñooñee ñu génne loon génne woon ci police bi Eh, doonoon ci eh, nguurug Abdou Diouf eh, gawoon policier yooyu le la ñu dund ba ba léegi mu ngi ci yéene kaa bi di laas yéene kaa bi di Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal diggante nguur geeg kuje politique bi ba tey xamaguñu ana ban waxtu la ñuy amale élection locale yi ñuy jëm mu ngi ci euh, Sud euh, Quotidien yéen a bi di le témoin mu ngi ñu dégtal dàqum élection locale yi duguleet dàq nañ ko dàqaat ko fii euh, anañu ko sooke dàq goge ndax nguur gi la wala ku jeg politique bi la yéen a bi gis ne mandat élus locaux yi daanaka am na lu lu ci jur coow ndax yaatalaat nañ ko ba waxtu ga ñuy amal élection locale yi kii di Mandiaye Cissé ak i tamit mu Ndiaye Cissé ak biram sek bu société civile ñoom jox joxe nañ ci seen xalaat taskatu xibaar bi di Ibrahima Bakhoum ak euh, Momar jong ñoom itamit wax nañu seen gis-gis ci yooyu la dàqum élection local euh, direct news xëy fasal nataalu njiit réew mi euh, Macky Sall ñaar fukkeelu forum international jëm ci wàllu koom ci Afrique njiit réew Macky Sall àdduna ci ne nañu béy suñu waar ngir itamit Afrique amaat koom gu naat lool te suqaliku mu ngi ci direct news. yéen a kaabi critique ne ba léegi mënaguñu xeex immigration clandestine te mu ne de lim bu takku ci ay milliards ñu xayma ngir itamit fexe ba ndaw ñi bañ a jëlati gaalu looco yi Barça wala Barsaq waaye nag milliards yooye mujjee na tàbbi ci géej ndax lim bu takku ci ndaw ñooñu le ba tey seen bakkan a ngi des eh, ci wax yi mu ngi ci eh, critique yéen a kii bi di 24 heures mu ngi ñuy fàttali fitna ga woon ci diggante ñetti fan jàpp juróom-ñetti fan ci weeru mars 2021 la mu jur ci fitna ak yàqu-yàqu ci réew mi 24 heures taxaw na ca ci wàllu xew ndaw ñi Mamadou Lamine Diallo njiital tekki ne jot na ñu taxawal ab commission d'enquête indépendante bu de njaaxaanaay ngir mun a auditer maanaam gëstu DER euh, koppar yañ ko jagleel ak lu ñeel financement ndaw ñi ana fu ci euh, tollo ana fu ñu toll ci jàppale ñi nga xamante ne ñoo lorule ci fitna gi woon euh, fan yi ñu weesu ci euh, ndakaaru xalif euh, général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yëkkati lu tollook juróom fukki million jagleel ko ñi ci lorule seddali gàkk na mu demee tàmbali nañ ko njaboot gu ne am nga lu toll ci ñaari million ña ca amee gaañu gaañu kenn ku nekk am nga lu toll ci benn million mu ngi ci sursoir yéen a kii di l'observateur xëy ba tey du ñu tàggee eh, génn ba àdduna doyen des juges Samba Sall yéen a kii bi ne dem na waaye nag eh, xëccoo tàmbali na am ci kako wara a ci ca kilifteef googee doon doyen des juges eh, yéen a ne sax am na ci ay tur yu tàmbalee fës mu ngi ci l'observateur ci xëtam bu njëkk yéen a kii di turbine ci xëtam mu ngi ñuy dégtal. Eh, weeru koor gu nar a métti la nar a amal atum ren ji ndax dafa yemook eh, daanaka ñi eh, ñi toog seen kër xeetuñu ndax tolluwaayu réew mi ci wàllu koom ak mbas mi di Covid 19 tax liggéeykat yu bari ñàkk nañu seen bërëbu liggéeyukaay mënatuñoo xëy entreprise yu bari tëj nañ fi bokk na ci njëgu dund gi ba tey lawoon woon fa woon yéene cabinet dina tar lool ci atum ren ji ci njaboot gi rawatina borom kër yi. yéen kii bi di Le Soleil ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal lu aju ci tamit fexe ba Sénégal mun a am vaccin boppam euh, jëm ci xeexum mbas mi di coronavirus njiit réew mi Macky Sall am na ci ñaari accord yoo xamante ne jot na ko ca xaatim professeur Souleymane bu ak docteur Amadou Sall. Euh, joxe na ci xalaatam ne accord yooyu le dina doon ngëneel euh, ci réewum Sénégal lii quotidien ne vaccin googee jëm ci xeexum euh, coronavirus Sénégal mi ñu doon mi ñu ci doon taxaw tey jii Sénégal bëgg na defaral boppam vaccin mu ngi ci lii quotidien lu jëm ci génn àdduna Thomas Sankara tax ñu kalame ci yoon Blaise Compaoré ne dañ ko yóbbu fu mbaxana donné benn réew mi quotidien desandeek ñun ci coow taxawal vaccin yi bari nañu lool te wuute AstraZeneca ak vaccin chinois beeg yeneen ak yeneen eh, coow la ca am yéen kaa bi réew mi quotidien xëy ñu ko yeggee eh, fexe ba ñëpp jot ci eh, courant bi njiital Senelec soobu na ci projet goo xamante ne lañ cay dugal ëpp na juróomi milliards. yéen a kii di le quotidien mu ngi ñuy dégtal reportage goo xamante ne def nañ ko ci hôpital Ninifécha gane ca Kédougou yéen a kii ne nag. Euh, dugg fa doon na jafe lool ndax melokaanam euh, na mu bindoo hôpital googe wute na lool bañ koy inauguré euh, ci atum 2002 lépp doonoon ci kilifteefu njiitu réew ma woon di maître Abdoulaye Wade hôpital ba daanaka màgget na xaat Euh, te moo gën a feebar sax ña fay fajoo noonu la ko le quotidien euh, fësale yéen a kaabi di libération ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal euh, juge Mamadou Seck mi jot kàddu dànkaafu jëm ci fat bakkan yéen a kaabi ne ci SMS la jote yooyu le dànkaafu am na ñu ko ne bu yaboo nga fagaru ci dossier Ousmane Sonko ding ci loru sa njaboot itamit dina ci loru deret dina ci tuuru SMS googee nag daanaka jot na ko juróom-ñetti ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru Euh, février gi ñu weesu ba tax na euh, ña yónnee SMS googe di Anta Diagne ak Yaya Siré Sissoko ñoom jot nañ leen ca teg loxo mu ngi ci Libération yéen a kabi di l'exclusif euh, xëy dalal njiital seen lekk bi tey mu ngi ñuy dektal électricité partout maanaam courant bi fépp. Euh, te ñëpp mun ko jot fexe ba lu tollook fanweeri junni njaboot ak yu teg euh, mun a jot ci courant googe njaboot googe te néew doole lool ñu fexe ba euh, lamp mun a takk ci seen dëkkuwaay wala seen kër Dakar Times ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal ñaari kuréel yi le bu dee ca Mali cordination des mouvements de l'Azawad la ñu am bu dee ci Sénégal MFDC la ñu am yooyu le kuréel daanaka ñoo bokk la ñu ñaxtu mu ngi ci Dakar Times yéen di enquête mu ngi ñuy dégtal mbéy meek mbéyum cosaan ga la ñu xamoon ci machine yàq euh, ngoos ngoos yaak yeneen ak yeneen mbéy moomu la daanaka euh, doonatul lu méngoo ko euh, jamono noonu la ko enquête xamle. yéen a kaabi di les échos mu ngi ñuy dégtal euh, la ñeel arène nationale ak nañ ko yàqee euh, lu toll ci euh, ñaari téeméeri chaise ak fukk ak ñett lañ fa toj rajax loolee nag doon lu metti lool Matar Ba jëwriñ gi ñu denk wàllub tàggat yaram ne mbir yi faw ñu xool ña ca seen loxo laale Eh, mu ngi ci eh, yéene kabidile Zeko Abdou Mbeng eh, mi nga xamante ne moo faral di teg loxo defkatu te yi jóge na ca section de recherche am doon na léegi lieutenant colonel doon patron bu gendarme des gendarmes ci diwaanu Dakar yéene kabidi Vox Populi mu ngi ñuy dektal arène nationale mi ñu ne kenn xàmmeetu ko ndax arène googee nga xamante ne dugal nañ ca lu toll ci fanweeri milliards ak ñaar te arène gi keroog rek yàq nañ ko yàqeet ay chaise lañ fa jota tojati Eh, doon lu eh, merlo Matar Ba yéenekaay bi di la mandat wax ci arène nationale eh, Matar Ba mi mu ne daanaka xamalul xamagul ba tey lu jàpp askan wi rawatina ndaw ñi ba ñu jël lu mel ni arène national ak koppar yañ ca dugal tàmbalee di ko yàq ci jamono ji ne dàquñu sax ba tëj ràpp googu lépp arène nationale bu ko jaree suñu làmb xëy jox kàddu Jules Balde di mag ci Ama Balde ma ngay teg pression Luc Nicolaï ci contrat gañu ne ci saison bi lay jeex waaye nag combat Modou Lo Ama Baldé Jules Baldé wax na ci ne Modou Lo moom euh, bokk na ci euh, dina ci daj lu ne ci googu lépp combat yéen a kii di euh, mu ngi ñuy dégtal.